jot suñu vidéo nag foo a xam kon dem nemmeeku yu njaboot ga foofee ba xam na banlieue ba ngi ma baar ba waaye bokk na ca kàddu yi gars yi yi ki foofu mooy ñu sàkku kilifa ñu taxaw ko gannaaw bokk li dalee muy l'accident de travail weer ci ànd ak ndongo ay dëkkandoo ak i am di jàmm yuy wéy di ñëw nag ci kër gendarme bu GIGN bi grenade takkoon nag ci loxo bi ci jàmmaarloo ya amoon ca Colobane. soxna si moom dal di ñëw ngir bokk nag métit wi ak njabootu adjudant Mohamed Ka. goro bu góor bu gendarme bi ni ndogal nag moo daal di ñëw waaye mu ni ndogal la bu dal ci kaw koo xamante ni ñoom amuñu fayam. dëkk na ko gëm yàlla ku gëm yàlla nga ni ñun ñi nag ñiy gorom dan ko sant sant sant ba amutoon ay mots yu yu nu mën a placé tellement que dañu teral sagal nu ba da ngay ragal sax di jàmbat daaw sama jabar dafa dem màkk moom moo ko yóbbu privé la ko yóbbu. Mamadou Mahfous Ngom ni Mouhamed Ka bu ñu dee wax ci moom du fi jógee mu ni foo ko takk nag ci mbaax oyof ak yéwén daal dina koy wees. alalam day génn di maye day day maye sax ba ñun suñu xol day yëngatu te dafa ko dara ndax tabe du wala xale yu ndaw yi nii football wàcce boppam te mënoon na yëkkati ay mbagam <laughs> manqué wul dara macha allah. moom sous-officier bi bokk nag ci corps d'élite bu gendarmerie nationale goro bu góor bi ni sans engagement bi mu amee nag ci GIGN doonut nag lu kenn di laam-laamee. la gendarmerie nañ ci def seen loxo te ñoom ji leen ko ji leen ko de liggéey na auprès de la présidence nekk un très bon gradé très bon gradé je ñaan gendarmerie ñu sa Thiès waaye nag lenn ci ndawam ma nga ko defee fële ca gin gi neew ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew wala si biir réew ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ xam